xanaa di rafetlu teewaayu njiitu réew mi bi nga xamante ne tey moo représenté Sénégal ci Dubai Expo 2020 Dubai Expo 2020 bu buñ koy wax moom mooy tey réewu adduna bi yëpp ñoom ñoo fi daje di wone vraiment seen i progrès lépp loo xamante ne def nañu ko ci innovation tey réew yëpp mun ci bénéficier wu. te Sénégal tey euh, mu nekk réew boo xamante ne euh, mbëbëtam yëpp mooy génn ci pauvreté dem ci émergence ak ci développement loolu nag pour moom faw ñu bénéficier wu. ci expérience wu adduna bi yëpp te tey duba Expo dina ko permettre dinañ mun a gis li nga xamante ne moom la ñu def ci réew yu bëri en matière de digitalisation en matière vraiment euh, de de de de mobilité en général et aussi Sénégal dina mën a nouer ay partenariat euh, public privé yiy tax ñu mën a baral lépp luy digitalisation au service public lépp luy vraiment euh, rendre accessible donc euh, service yi nga xamante ne sénégalais yi dañu ko soxla grâce au digital nit ñi mën a liggéey sans pour autant ñu dem seen bërëbu liggéeykaay mooy maanaam euh, télétravail mu nekk loo xamante ne tey faw ñu dugg ci ère boobu te Dubai Expo 2020 donc dañuy réfléchir pour le futur te Sénégal mënu woon bañ a teewee mbir mi en tout cas rafetlu nañ bu baax vraiment la très bonne représentation de notre pays